rentrée scolaire 2023-2024 waajur yi di ko waajal bu baax tax ñu xëy dem Colobane daal di tànnal xale yi ay yére naa waajal leen rek ubbiteer bi waaye nun man de def rek bégal xale yi ndax xam nga ne xale yi ñoom amuñu lu dul seeni parents boo école ubbee daal loo am rek nga defal xale yi ouverture bi laay préparé ouverture bi da xam nga egsi na fin du mois rek la dama ñëw pour xoolal si xale yi fii. ñenn ñi gis nañ ni yomb na. ñi ci des moom li ñu gis ni yére yi. fa xaw a cher. di ci am yu rafet yoo xamante ni boo ko fóotee ba mu set paase ko sa doom dina ko mën a sol yàgg. waa dina yomb dina gën a dëgër en plus tamit dina gën a originale. loolu lañ ci gën a préféré. waaye yëf yi seer na seer na seer na seer na morsa 1000 francs am na morsa 500 am na lépp sa mu wute loolu ak jaaykat yi ndaxte ñoom nee nañu mbir yi yaxan na ci ñoom te lu waaye am am fëgg jaay. kenn ku nekk moom li nga am moom da nga da am ba doyal sa bu soobee yàlla waaw kenn ku nekk moom li nga am da nga am loo loo am daal boo liggéey say xale danañ solu moom danañ solu waaw ba tey jaaykat yi di xam ne nii bu waxtu wi jotee ci la ñuy gën a gis seen bopp te dañu koy waajal bu baax ouverture moom bëgg jaay bi day tane waa parce que euh, xale yi dañ leen di préparer avant ouverture di ñëw ay euh, yére xale yu ndaw yi ay tubay ay robe yu ndaw yëpp dañ koy préparer avant ouverture yi ñëw parce que Fouga Dia moom ouverture lay gën a dox nag ci yeneen kii quoi. waaw instant bi dafa yàlla moom ñu ngi sant yàlla bu baax mi ngi neex nii waaye ouverture yi moom ñu ngi ci daal échange bi nii mais nag après gàmm lay gën a kii quoi après gàmm mais teewul nit ñaa ngi jënd ndànk par ndànk. moo gën a yomb moo gën a mën a yàgg teg ci itam mooy gën a rafet lile di ay kàddu ñi nga xamante ni ñoom la ñu fekk ñuy tànn yére yi fëgg jaay pour seeni doom ngir rentrée scolaire bu mucc ayib.